nee na magasin joxe boo koy bëgg a xool tab ga mu ngi Seydina Muhammad. yaa eh, durratal akwaan. mooy wurusu monde wi xam nga mooy kan yëpp waa Sahel Network TV muy Seydina Muhammad. yaa qataran nadaa. nee na booy bëgg a wut tabe boo xam ne day toq any time du du du du du mosat maanaam day toq any time. Mhm. foo day sotteeku ngir tabe muy Seydina Muhammad. yaa naasira diini qawiimi wa diine ji muy diine l'islam ki ko dimbale ak ñoom diine mooy yonent Yàlla Muhammad. ya saqil kufaari. ah waaw yaa nandal yéeféer yi. kaasaati rada. yaa leen nandal kaafu alkande ci xaylihi ak xayrihi jallabal wara wali man ajaabu nay la xayra wala xayra duna. yaa rahmatan lil alamin wa izzihi. wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yonent Yàlla Muhammad mooy yërmande ñeel monde entier. ndax dëgg-dëgg yërmande yemul ci yàlla ne ko wala saw fa yu'ti ka rabbuka fatarda eetaa yonent bi toog na benn julli goo xam ne saxaaba bi nee na gisuma mosumaa gis julli gu yonent yàlla Muhammad julli noonu kataana julli ga mooy lan yàlla yàlla bul boo mbugalee sam sama xeet yow la yaay borom su la neexee jéggal leen rukoo ba yàlla soo leen mbugalee yaay borom soo leen jéggalee yaay borom sujjóot taaya yëpp kàbbar ga julli ga yëpp a bokk loolu fa muy daane jibril ñëw ne deret wala saf yo anti kar bu ko fa daa yunti bi tàmbali ma doon jooy tàmbalee ree ñu ne ko looy ree mu ne yàlla ne yowmal xiyaam ma jox buntu aljana yi mooy ba ma ne doy na te du ma wax doy na te kenn sama xeet na dugg sama sallallahu alayhi wa sallam najaatu kon ku am koy bëgg bëggal Seydina Muhammad alaa jàpp ba ne moom fële ca doomu Seydi Malick nee na moom bëgg rasulillah yi mucc la ñeer ñi nga xam ne ñooy def ko fa bakkaar xayaatun bëgg rasulillah yi suñ ko defee dëgg-dëgg coronavirus bi jaaxal gaa yi yëpp nee na bu ñu bëggee mucc hmm. ci coronavirus bi sans vaccin sans sans sans sans sans everything nee na nañ bëgg rasulillah yi yow kon yow mi may yedd fii ci Sahel na doo kii bi yow mi may yedd naan gàmm dafa biraa gàmm dafa haram yow mi may yedd pour lan famalihim min nasibun ñeerul kooku ñuy waxee amul cër ci man ولا ميلاي سما قلبي داني بايما ولا ميلاي بما يرد بغ رسول الله فرا ترى الى حبي انا جابر ني نك بغ كيما بغ رسول الله لمثله حرام موي بغ كو كودول يونتي بي دافا حرام فارحمي حالي غير خفائي فارحمي جمال ما حالي سما مبير خير خفائي نبتوما من كيما بغ موي رسول الله قد سقاني قد سقاني نانرا لما لان كحسل ما nabi. saa su bëgg yàlla lañ ma nandal. mi fuyudaati xaatimil awliyaa. maa ngi ko jëlee ca faydu ki nga xam ne xaatimul awliyaa yi kamaa anna jadduhu xaatimul anbiyaa wa imaamul. kon yow mi may yedd bàyyi ma jóg. fasrif inaanaka anni. mooy fasrif mooy soppil sa gox jëm ci keneen. watlubil ghayra innanii fii fanaa'i. dama li yeddi keneen ki ne ci caaxaan man li ma ne farata la bu ma yedd laa wax. xamru shawqi. ndax sàngaraw cofeel. man ko mas laalu baali du faale. man atalaay man bi duuni tiraay. ku ñëw di la yedd naan la ki ngay tagg lii bi daal la wala dafa xaraam. xubu taaha. alaaja bi ne bëgg taaha taaha ci turu Rasulillah la bokk. lil muslimiina. ñeel na def ko tu bàkkaar yi. najaatun. mucc la ci ñoom. wa muy sécurité la. min hawli yawmi liqaa'i. keroog bésu tiitaange ba bésu yawmal qiyaam bi nga xam ne nit dana tiit. tiita tiit ba jë jàkkaarloog doomam na ko doom maalo bi ma la doon jox bi bi ma lay dundal fay ma ko doom yaay xool doom ni mu neexee mu ne ko mio mi ma la doon nàmpal fay ma ko yow ma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillahi esa boo bëggee lu la fa dal sa xel muy hmm. bëgg rasulullah inna hubban nabi alaa jàpp ne naka bëgg gi ma bëgg Muhammad xaalata lahmi dafa dem ba jaxasoo sama yàpp wa idaami dem na ba jaxasoo sama yàpp wa damma jaxasoog sama yuur jaxasoog sama deret te ngis taluma ci li may wax maanaam hada shawqi alaa jab du ne bëgg yëngatu na lu yëngatu mooy sama cofeel li xumi xayril baraaya ñeel bëgg gi ma bëgg gi gën ci mbindeefu yàlla muy aji feeñ ñeewoon akramil kuraamaani ñetteel da seen seef muy yun ci àlla muhammad sayyidil mursalin mooy sang yonent yëpp hadil baraaya moo gindi jaam ñëpp li dallaay jëmee leen ca keppaaru yàlla waali di zahra ku koy bàyyi Fatima ak Umu Kulsum ak Roqiya ak Seynabu bëgg taaxaa kooku ne yonent la jël naa sama farata def ko bëgg Rasul jël naa sama naafila def ko bëgg yonent jël naa ndox mi may naan bëgg yonent bi laa ko def sama mbir ci àdduna ak àllaaxira bëgg Rasulullah mooy sama lekk sax bëgg Rasulullah bëgg rasulilaay mooy léeg li may dëkk. wa zamzami. bëgg rasulilaay mooy ndoxu sam-sam damay naan. wa xatiimi. sama bëgg xatiim ca Makka def naa ko muy bëgg rasulilaay. wa maqaami. maqaama Ibrahima bi ngay dégg Alaaji Abdu ne indi naa ko Tiwaawan def ko muy bëgg yu. wa marwati. Alaaji Abdu ne Marwa ak Safa ga ñuy daw def naa ko muy bëgg rasulilaay. wa Safaa'i. mook Safaa yëpp bëgg rasulilaay la. xarami. sama xarami bëgg rasulilaay. masari. sama masari bëgg yonent bi hajaral aswad sama qibla moo waaw Ahmad Bamba bàyyi Basak Baara moom it góor ga nekk Touba moom it jëloon léppam jox Rasulilaay moom mu ne lam yàttu mos ta bind te du bind ba ilaa yawmal qiyaamati sëñ Bamba kan ngay wax. lam yabdu misl Mustafa Muhammadin. sëñ Tuubaa nee na lam yabdu mosta doo mosta bind te du bind misl Mustafa ku mel ni ñu ci Yàlla Muhammad sëñ Bamba ne wax ji bu mu la jaaxal jeexal ci suuf ba àgg fa nga gisul ku mel ne Rasulullah dootul am waaye doxal ci ndend suuf ci ba foo mën a dem ci àdduna ku mel ni doomu Abdallah Ahmad Bamba mag da Muhammad moo ñëw tàllal l'islam moo fi génne yéeféer mooy ci laaxe biiru Rasulullah képp ku tabee ba dugg ci diine ji ci laaxe biiru yonent bi nga duggee yi Bamba ne Muhammad bu misaalu Muhammad ma tudd Madinatu Munawwara na misaalam dootul ñëw laa wax. fii ma ada. ñappaase ca Adama ba Moussa ku mel ni Muhammad mos wa abadan la yaati. waay waay bi fi jógee ba man Bamba ma fi ku mel ni Muhammad dootul ñëw. li xale yi naan namu ma mu njëkk a wax namu dara yàlla kenn la namu mu yónni yàlla Muhammad mu ne sabata sax na leer na ma man Ahmad Bamba ne yàlla namul kenn ku dul Rasulullah leer na ma ne man Ahmad Bamba yàlla namul ku mel ni yonent Yàlla Muhammad te misluhu ku mel ni Muhammad Muhammad yàlla dootul ko nangu ba illaa yawmal qiyaamati la lahu siyaadatu nee na Muhammad mooy ndollante bi lahul bala kii mooy ku yéemee kii yow alastu mooy kerek ba yàlla ne alastu ndax du ma seen borom wala la shafa ak kerek bis bi yàlla naan jug yow Muhammad jug a ramu ramu jaam ñi kooku yonent la wa rasul yàllaa ko yónni mooy xaritu yàlla bi wa wal habib mooy soppe bi yàlla bi wa wal imam mooy imam bi wa dalil mooy kondir bi kayfa tan xaaruqiyat al anbiya kon tabarakallahu dafa mel ni dañuy ñëw rek tabarakallahu ci gàmmu gi ñu tegal ni suñ baaroom fii li nga xam ne mooy génnaguñ innahu is arada allahu naslatana abana min nuurihi nuuran nabil alamin mooy ñu ngi ci leeru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam leeru yonent boobu nag nga xam ne te yàlla lam ca bind yépp leer na ne kon leeru Muhammad yàlla ko bindee ci leeru boppam waaw léegi leeru bindee fi yépp yàlla mu ngi ko bindee ci leeru Seydina Muhammad yaay Malick nag ñëw nag fi alamil mulki wal arwaaxu taabiatun li ruuxi wal jismi hada xaayatul karim waaye alaaji xesa dafa mel ni tabarakallahu tàkkusaan gi waxtu wi mu ngi nuy def si te xam naa ne dañuy bëgg rek incha allah rabbi ñu jox waykat yi ñu am bu ñu wëy rek ñu dal di tàggatoo ah joxe dig daje rek ba beneen alxames ak jàmm insha allahu rabbi ci fii ci Sahel Network TV ñu spécial gàmm boo xam ne pour bëgg Seydina Muhammad rek la ndax bët bu set samedi bu jot weer wu jot ñu ngi ci tànt yi di bëgg Rasulullah tey nag gàmm bu ñu ma coronavirus moo ñëw siisu sa tant ya mm. siisu sa jumaa ya mm. siisu sa jàkka ya mm. kenn génnatul jumaa ya kenn génnatul jàkka ya kenn dematul sa tant ya waaw nag Sahel Network TV ci seen baax mm-hmm. nga xam ne tabaarakallah ak soxnaam soxna Oumy Bathily soxna Oumy mm-hmm. nga xam ne tabaarakallah fii ci Sahel Network TV ñu ne nag la nit ñi daan seetaan te gars yi yonent bi rek la ñuy bëggee. waaw te ma soo koy waxtaanee ñoom moom rek la ñuy bëggee man ku ma sopp xam nga man ku ma bëgg. dara taxul nga bëgg ma yonent bi rek kata nga bëgg ma yow it kazaalika Baye Modou kazaalika ba Ahmed Mbaye kazaalika Alaaji Maas Jaañ kazaalika kon ku bëgg tabaarakallaahu tàggatu yonent bi ku leen bëgg kenn taxul nga bëgg leen yonent yàlla Muhammad ñu ubbil ñu ko fii nag mu yomb lool donte tabaarakallaahu koor gi doy na waar lool waaye Baye Modou lu fu ngeen di kii xanaa ñu tëjee Cheikh Tidiane rek Cheikh Tidiane incha allah أنت الذي جعلت أقتاب العلي شيخ صلى الله عليه وسلم متبا سمت فسبت عن نكراني سي بابا كرسي خمنا يا الله خمنا شيخ نتيجاني شريف رضي الله تعالى أنت الذي دل الجواب قلوبه أدبا بمجلس شاف الأكوان أنت الذي شقيان شريف رضي الله تعالى حقا أتيت جواهرا وفرائدا هي خلية الإيمان أنت الذي شتيا قدماك قد على تعالى أهل المهيمن حددت هاتان نرجو خلاصة وسلامة سيدي عن شفا عدائم الأحزان لي ذفرة أخشى فويق المجتمع فكأنني من فائد التوفان حمدا لمن شيخ قد قصنا من فضله بطريقك الصافي سن النوران وكفى القياس دائما نودى به نحظى به في عالم روحاني نعم القياس سالكين إلى المنام ويحفظهم حفظ لدى الأركان فصلاة ربي شيخ ما سلام دائما أبدا على خير الورى الحنان وبآله أتهار بل من دد ميلاد أنا يا شيخي Under the mind, I'm a time of shelter. Now let me love her. the mind, téere si barke sëñ Babacar kon nag Xalifa Mbaye wóolu naa jërëjëf Baye Ma Diop jërëjëf sëñ Babacar waaye jërëjëf Sahel Network TV alaaji Aboubacar Bathily ak soxnaam soxna Oumy Bathily lii yëpp ñoom la waaye nag jaarale ko ci alaaji Idrissa Montagne si soxo moo ñu jokkale ak ñoom ba lii mun a am waaye di dellu di gërëm Serigne Cheikh Tidiane Gueye ci firi mu am solo mi mu fi def gërëm it groupe soppa sëñ Babacar jiite ko di Baye Ma Diop suñu rakkat suñu xarit suñu soppe di gërëm waajur yi ñu bàyyi sa kër ga soxna Xadi yaa ko fay ak fa tabaarakallaahu soxna yi fa bàyyi soxna Ayda Tambédou soxna maam Gueye Bangoura ak njaboot gi yëpp fa tabaarakallaahu lii nag mooy première gàmmo bi nga xam ne moom lañ amal ci weeri koor wi ànd ko ak waa Sahel Network TV insha allahu rabbi ngeen subscribe bu ko defee programme si des yëpp di ngeen ko mun a am ngeen yu nag fii ba ndeetalu koor ga fii ba korite ga insha allahu rabbi ñu ngi leen a waajal loo xam ne ah sëriñ Aboubacar Bathily wax na ma ne mu ngi waaj loo xam ne ci korite gi macha allah dina doon ndëwinal loo xam ne ah ñëpp dinañ ci jot waaye di gërëm imaam ratib imaam Alioune Thierno Maska di gërëm it imaam Mouhamadou Tafsir Gueye mi nga xam ne moo fi jiite ahlu Tiwaawoon fu la reesoon fii kër gi fa tabarakallahu duñ def dara lu tàggoo ba beneen yoon sëñ Cheikh lay tëjee tabaarakallaahu alhamdulilah kanaa kontaan rek wax dëgg yàlla ci yaram yu neex yi ak yëg-yëg ci Seyduna Muhammad ndax nii rek lañ koy defee ci tant yi dem ci géew yi fu ne di fa tagg rasulillah suñu deret suñu ruux di ko yëpp waaye tey tabaarakallaahu ruux yëpp dekkaat dekkiwaat nañ buñ deewoon hmm. waaye di ñaan yàlla nattu bi dal àdduna yëpp tabaarakallaahu tam mooy coow lu bëri lii nga xam ne coronavirus indi na ko ñaan yàlla teggal nu lépp rek bi jaaye sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax rek ni ko alxaji isa waxee ñii ngeen gis nii tabarakallahu maak ñoom fii ci Serekunda wax dëgg yàlla waaye maak ñoom ba Sénégal maak ñoom fu ne fu may dem wala ñoom fu ñuy dem ñu ànd kon fu ma leen woo ñu wëy si ma kon maa ngi gërëm bu baax a baax sama gars yi nga xam ne tabaarakallaahu wax dëgg yàlla ñoom may ñoom ñooy man yal yàlla jàppale leen ñoom it seen liggéey nga xam ne kenn ku ne yaa ngi tagg rasulilaay waaye yaa ngi am sa métier bopp boo xam ne yaa ngi dem liggéey kii marché la jógee ñoom ñaan ñëpp sanc lañ jógee nga xam ne kon jëluñu woon tagg yonent bi rek def ko muy seen commerçant wala def ko muy seen dund déedéet kenn ku nekk ba ma lay woo da nga jóge ko sa liggéeyukaay ak sa yëre tabaarakallaahu nga solaat ko pour ñëw fii tàgg yu ci Yàlla Muhammad lii nag la Serigne Cheikh Tidiane si daan wax nitu diine tabaarakallaahu du góor ci diineem rek ne man ci diine lay dundee mm. déedéet day dem ci leneen di liggéey ci leneen bu diine ji ñëwee mu marca ñii ma àndal nag ci ñoom loolu lañ bokk waaye nuyu rek tabaarakallaahu borom kër gi ñaanal ko yàlla tabarakallahu ñu dem ba suñu Sahel Network TV bi yàlla def ko ay mu doon télé yi gën a màgg ci àdduna bi ndax yonent bi ku ko xajaral sa sa mbir dara kooku mbiram dafa war a yaatu hmm. kon ci barke yonent bi ak ci barke gàmmu gi ak koor yàlla na tele bii nga xam ne tabarakallahu muy Sahel Network TV doon télé bi gën a mag ci Gambia tout hmm. wala ci Afrique tout yal na ko yàlla def hmm. ñu ngi koy ñaan yàlla nag ci barke yonent ndax boobaa kat yonent bi imaasam dana dem fu ne mm. danañ ko wane fu ne dana fa dem fu ne di ko suum di ko génnee pour lan mooy xam ne ne yonent yàlla Muhammad moom lañu yàlla joxoñ moom la ñu yàlla royloo moom la ñu yàlla bëggaloo mm. waaye nuyu suñ caméraman bii nga xam ne tabaarakallaahu bi bi bi yëfi neexee lool sax mu ngi yaamu di jaayo lu yëg ne mm. kon àdduna ñu ñëpp benn lañ ñun ñëpp tabaarakallaahu all all the people xamatu geeda waaw all di ah, waaw ñun ñëpp ak ah, benn lañ kon ñu ngi leen di jox dig. ahlu Tivaouane fédération ak Jamia bi ñu ngi koo suivre. mu ngoog ahlu Tivaouane fédération moom tabaarakalla ñooy ñoom ñun ñooy ñoom bu ko fi imam Seck Mouhamed Lamine Seck imam ba ak El Hadj Abdou Aziz Diop ñu ngi nuyu ñëpp rek fédération bi yëpp di leen wax rek ne subscribe leen suñu YouTube bii nga xam ne tabaarakalla mooy Sahel Ndao TV ku ko mm. tappee rek da nga ko gis. boo ko socroiser rek incha allah rabbi yaa ngi jàpp ci liggéey bi te it incha allah ñuy ubbi buntu ñëpp nag ku bëgg a jàpp ci sponsor yi nga xam ne danañ sponsoré programme yu mel ni la ah boo ci jàppee rek lépp ñu ngi ciy ubbil buntu ñëpp am na ñu may woon ak fu ne di gërëm ci waxtaan yi di ci kontaan ni muy jàlle waaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax rek incha allah rabbi seen gàmmu boobu seen waxtaanu koorangoog fii ci Sahel na TV waaye gërëm ñëpp rek kontaane leen ak ah, kanaa wax rek eh, ñu joxe dig daje ba beneen yoon insha allah rabbi insha allah rabbi ma jóob da nga am kaddu tabarakalla xanaa di santaat yàlla bu baax rek di gërëm ñi nga xamante ni si ñoom la yàlla dogal suñu ñëw fi mhm. muy xaaje sa tabarakalla sëriñ cheikh mhm. tabarakalla di gërëm borom kër yi mi mhm. ngeen ko waxee ak suñ cameraman bi ñëpp tabarkalaaw di gërëm ñi ma àndal nga xamante ni si fu ñuy dem fu ne ñooy ànd mhm. ak ñeneen ñi nga xamante ni si ñëwul mhm. comme ni ko sëriñ Seex waxee rek comme dañoo toll jamono joo xamante ni si ni jamono yi mbooloo la ñuy tere mhm. moo tax ñuy ñëw rek moo tax ñu ñëw ñu ñu ñëw ñëwaale ni mu ñëwul tabarkalaaw ñu ànd ak Hadj Ibrahima Niang di doom ci imam Niang bu tali bi tabarkalaaw nga xam ne fu ñuy dem ñuy ànd Mouhamed Mbaye ak Hadj Mass tabarkalaaw di nuyu soxna yi ci kër ga وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد الفتح ما ولد والفتح ما سبق ناصر اخلاقي والذي الى سالك المستقيم وعلى اله حق قدره ومن خير عظيم